Moi, salam la ñu rapidement live <clears throat> donc c'était tout d'abord pour tous les patriotes li may faral di wax que soyons constants nañu gëna ayons la même force que Ousmane Sonko ayons la même force que Pastif, ayons la même force que tous les Sénégalais en général Nous constant ci

su ma ne Ousmane Sonko ne Bassirou Diomaye Faye ils ont déjà eu moult euh, occasion pour génn ci pour génn si kaso bi mais ils ont tenu bon ils ont eu une constance pour ramener ne ngëm yàlla bu ñu joxoon seen bopp moo leen génnee tey ñu am ndam Sénégal yëpp am et pourquoi je convoque cela je convoque cela pour qu'on soit beaucoup plus exigeant intransigeant qui projet beau ambitieux bi ñu yor lu tax may insister ci loolu dafa am solo gars parce que si nous ratons ce virage, on a beau élire Bassir Diomaye Fay, un homme droit, un homme juste, on a beau élire le projet passif jox ko suñu mais constance bi ñu woote si ñun su fekkee ne constance boobu nekkatu fi bah ça va finir comme temps wu Abdou ça va finir comme temps wu Ablaye ça va finir comme temps Maxal et ça va finir comme temps tout le monde on pourra pas changer ce pays parce que ñi nga que nous dañu bëgg ben affaire gëm ko dañu dem ba ci biir ñu bëgg jël ay circonstances ci parce que circonstances du moment bi daf ma arrangé bon je vais m'accommoder Macky Sall bu mu bëggee troisième mandat waa APR dañoo jàppoon ne circonstance yooyu ñu nekk ñoom day dafa mënoon seen vérité ñu accordé aussi jëm ci pousse Macky Sall Macky Sall coono gu mu teg Sénégalais Ray rey ray Sénégalais yi gaañ gu Sénégalais parce que y a des Sénégalais du moment yo xam ñi ngi won ci benn côté pour c'est une vérité moo doom Macky Sall mo nekk ci deug, foog mu ray ay Sénégalais foog mu tëj ay Sénégalais foog mu euh, euh a yak un projet comme le projet de Ousmane Sonko parce que vérité une moi, vérité parce que circonstances m'ont poussé à cette vérité pourquoi j'insiste et je vais insister là parce que live du goudou. parce qu'on voit des fois des choses hein. tu te dis mais écoute ça c'est le même comportement qu'on voyait avec Macky Sall Herbi, bi sénégalais encore combien de fois moi personnellement combien de fois j'ai fait des lives Papa Alenia, combien de fois il a fait des émissions combien de fois si télévision yi combien de fois ay kilifa ci rewmi ay kilifa diine kilifa aada ñu né rewmi kan mo ñu wallu kenn wallu wuñu personne bon des gens que tu respectes parce que nit mën nga ko respecter mais nit bu dul jum amul on hein. Ousmane Sonko dina juum Bassirou Diomaye fay dina juum keneen ku dul ñom di nga juum bës bu ñu juumee dañuy taxaw na ah señ bi kat yow mi xam nañu ko deggu nga mais pour le moment fi da nga juum et ñu ne la da nga juum da nga juum da nga luppe ba sa baaram tank dellul ginnaw ci li nga nek dellul ginnaw ci li nga nek du wax bu indi wat mais c'est important parce que daf ma interpeller daf ma travailler sénégalais xex xeex am ndam Ousmane Sonko xex am ndam et pourtant beaucoup de circonstances auraient pu faire que Ousmane Sonko génn ci lu mu nek combien de fois on lui a proposé ay ay ay xaalis bu bari proposé ko monts et pour mu bay ci lu mu nek pour ma génn kasso meuna a dund dund mu neex mu bañ tay amul deug maintenant kéro daf fi bon bu kenn bu l'histoire et pourtant Dieu sait que moi tous les jeudis tous les jeudis je ne rate aucune émission de Serigne Barangay. c'est un homme que je vous en énorme respect du mës dire, et c'est pas parce que la dernière fois critiqué bien une position que ils remettre en cause mon lu mu gëm mon xeex bu mu xeex Serigne Bara ak keneen ak keneen lu ci projet je man defuma mon ci mais ku juum dañ ne da nga juum bu mais bon, lui, ça nous arrange pour le moment. Vu que ça nous arrange, on va fermer les yeux. Bah, forcément, quand Bassirou Diomaye Faye sera président de la République, et il le sera, bah, si Diomaye, on am ñu taxaw non, vous encore ko wax dara. Taisez-vous. Macky Sall bu muy pareil. Lu taisez-vous, ko Donc, moi, j'appelle tous les patriotes qu'on aide Bassirou Diomaye Faye, qu'on aide le président Ousmane Sonko, qu'on les aide à devenir les plus grands hommes de l'Afrique. Et en faisant quoi En étant exigeant,

du ñëw rek nga taxaw moi je félicite d'abord je prie Allah pour que tous nos martyrs ñu yégal leen ci àjjana yu gën a gën a kawe je prie Allah pour que tous nos blessés yàlla yëkkati leen faj leen ba ñu wér péng ba ñu xam ne sacrifice bii ñu def tey moom la ñëpp di feetu tey ku tëb di feetu tu dois penser à ceux qui sont partis tu dois penser à ceux qui sont couchés dans nos sur les lits d'hôpitaux ba léegi am na ñu siy faju ba léegi instant ñuy faju ils sont restés plus d'une année 3000 prisonniers politiques ñu tëdd ci les yi di muñ tey tax ñu contane sacrifice bobu tay duñu nous, tay ñepp mais quand on quand vu qu'on est en train de jubiler buñu faté ñaanal ñi fi nañu gore ne faté ñaanal d'abord ñi fi jugee buñu faté gëna massaw ñi tëdd ci nous sommes tous les massaw les 3000 prisonniers politiques parce que ñom ñoo tax am motax kérok mané on acceptera de qui que ce soit qu'on falsifie l'histoire. Et c'est pas pour jeter l'opprobre pauvre sur un individu, mais c'est pour rester ferme sur mes convictions. Je reste ferme et je resterai ferme toute ma vie sur mes convictions. Et qu'importe que tout le monde se prépare. Passé va prendre ce pouvoir. Passé va gagner ce pouvoir. Mais il faut que tout le monde s'attende à ce que qu'on surveille ce projet comme du lait sur le feu. Et l'on n'en déplaise. Et j'ai l'habitude de le dire. Je fais pas de vidéo, je fais pas de live. Mon engagement personnel, c'est pas pour plaire, en fait. C'est pas pour que les gens soient contents de moi. C'est pas pour que les gens ils me disent, ouais, content nature. C'est pas pour que les gens ils me disent, tu es, tu es pertinent. C'est pas pour que les gens me disent, ouais, tu es engagé. C'est pas pour que les gens me disent, projet Je me bats pour le Sénégal. Je me bats pour un idéal. Je me bats pour que ce pays soit le, le, le, premier en Afrique, le premier au monde. C'est pour ça, Et lolo, en fait, je ne prendrai pas de gants. Je ne prendrai pas de gants que tout le monde se prépare, parce que le passif va gagner ce pouvoir, et mais que tout le monde se prépare à ce que, quand le passif arrivera au pouvoir, qu'il y ait des Sénégalais debout, fermes dans leurs convictions. Parce que si tu veux plaire, c'est simple de plaire hein, sur les réseaux sociaux, c'est simple. Hein. Tu viens, bah, tu caresses les gens dans le sens du poil, tu caresses les gens dans le sens du poil. n'est pas content. Mais on n'est pas là pour, se caresser dans le sens du poil. Hein. On est là pour se dire des vérités. Et quand il faut se dire des vérités, mais Ousmane Sonko dafa wéte wéte wéte ci dëgg tëdd kasso wéet ci wéet ci wéet ci tey anamu ngi pas Sénégal yépp genn nañu lu ko ko may constance constance et pourtant il y a un moment il y a des gens qui se sont dit bah écoute pourquoi Ousmane Sonko il négocie pas parce qu'il négocie bon du gàcce du parce que bon Constance, il y a 3000 prisonniers politiques Ousmane Sonko ne man pas négocier ak avec un pistolet sur la tempe constance ngi non constance pourquoi Ousmane Sonko s'est pas dit bah écoute bon am nañu dee am nañu gaañu am nañu il y' a 3000 jeunes dans les dans les prisons bàyyi ma négocier génn il l'a pas fait parce que xam na ne dëgg mooy njëkk mooy mujj dëgg mooy njëkk mooy mujj fii que les gens se préparent à ce que quand le pasteur arrivera au pouvoir que des Sénégalais seront toujours là debout ne projet bi dañ surveiller comme du lait sur le feu et eh, Bouken accepte sax nit ñëw naan la waaye bàyyil mu jàll waaye bàyyil mu sedd bu du bàyyi dara parce que moi, j'arrive, moi, tous les soirs avant de dormir, tous les soirs avant de dormir, je pense à tous ces jeunes qui ont été assassinés. Tous les soirs avant de dormir, je pense à tous ces jeunes qui sont couchés sous les lits d'hôpitaux. Avant de dormir, je pense à tous les 3000 prisonniers qui ont fait des sacrifices énormes. ni ni kasso, Donc moi je pense à toutes ces personnes et je me dis pour que ça ça ne se répète plus président vous il prête serment midi pile midi trois ñu taxaw ne lu di la tu fais quoi mais gars mais Macky Sall ñoko Macky Sall c'est un Sénégalais comme vous et moi vous êtes des Sénégalais comme moi ñi koy wóoroon général Moussa Fall Antoine Félix euh, euh, comment dire Ismaël Fall allez demander euh, ñu fii la ci comme tout le monde comme vous et moi qu'est-ce qui les a différenciés entre vous et moi parce que un moment eu le pouvoir et quand ils ont eu le pouvoir ils ont eu le pouvoir.

safara lañ jëm te pourtant Macky Sall moo sàcc seen xaalis ba xalé dem lolu am fi et tu le dis et tu le dénonces tout le monde est là bien vu bro bravo bro wax nga bro toj nga fi bro un jour tu viens nga gis ne c'est toute cette histoire toutes les personnes qui te disent toj nga fi wax nga deug wax nga même personne qui revient pour te dire non Baïl. non vous critiquer mais nga ces gens sont pas constants ces gens sont pas des, sont pas des gens convaincus ce sont des sénégalais comme comme tout le monde ce sont des gens qui risquent même quand Macky Sall euh, euh Diomaye Faye aura le pouvoir de venir dire à Bassirou Diomar Faye defal le la nañu constant gars et moi jusqu'à ma mort hein. moi jusqu'à ma mort je resterai constant sur mes positions naa tu que je peux rester tout seul et wax n'y a ko les premières fois que je faisais des lives j'avais pas cinq vues. J'attendais pas à ce que les gens ils me regardent. J'attendais pas à ce que les gens ils soient contents de moi. J'attendais pas rien du tout. J'allume ma caméra, je parle. Après, su suis pas ay nit su ba ay nit gis bon qui les lu muy wax neex na Selanko? Tant mieux. dem seetaan ko tant mieux mon fi mon monde des coton mus ngeen gis ma vidéo partagez partagé leen ma gars mes lives, na ma ñëpp a les partagé leen ma mus gis ma publier def une publication tagué 100 personnes pour mieux lire ma parce que j'ai pas besoin de reconnaissance de qui que ce soit j'ai pas besoin de je cherche pas de reconnaissance en fait je cherche pas de reconnaissance les les seules reconnaissances que j'ai recherchais, moi c'est wajur bu góor ak bu jigéen te balaa ñu génn àdduna gërëm nañ ma loolu kese amul sax tante tonton de cousin euh, euh, lijjantiwu ma sax loolu man pas pas ak sama yaye. En fait, ce sont ces deux seules personnes qui ont eu, man, me courber ou l'échine pour am sen gërëm. Te sama papa sama ma gërëm bala ñu génn àdduna. dañ ma gërëm la dernière chose sama papa bu muy génn àdduna fekk ma Sénégal mais la dernière parole moi, échange avec ak papa daf ma gërëm di jooy et c'est la première fois moi, dégg sama papa jooyam. donc man faut laa donc tout le monde s'attend loolu loolu may am donc dama bëggoon def laay bu gàtt bi encore une fois moi, man il féliciter les patriotes. Je vous félicite, mais je vous félicite. Je suis tellement content. Je suis tellement heureux. Ça me rôle d'affaires. fesse. Parce que boy, dañoo Ils se sont battus. On les a humiliés. On les a... Nous lu boy personnellement, ils ont plus de boulot. Ils ont plus de travail ñun ni ngi nii yeewu xëy liggéey wàcc dang-dang def sa course ñëw dugg say doom say doom content nga jënd leen ay course jënd leen ay bagage jënd leen ndogu jot nga ñëw taaj sa ndogu ndogu bu neex pendant ce temps des gens qui font qu'aujourd'hui je suis content ñoom amatuñu liggéey yo oh. ñoom ils travaillent plus yo oh. ils sont sortis de prison oui nous sommes tous contents mais ils sont où est-ce que vous êtes partis leur demander eh gars yéen bi ngeen génnee prison liggéey bi nga dem liggéey est-ce que yaa ngi koy liggéey ba léegi personne ne se pose cette question hein. personne on est juste content on est heureux mais je rentre chez moi moi damay teg ndogu samay doom ndogu samay doom woor ñëpp ndogu ndogu yu neex après ma troisième vidéo Ousmane Sonko est sorti et je suis tout content mais Ousmane Sonko mais prisonniers politiques mais est-ce que est-ce que on va accompagner ce projet et personne ne va falsifier l'histoire ça je tiens ça je je me battrai c'est rien c'est pas méchant en fait c'est pas méchant damay juum des fois gars yi bind ma ma eh bro fille da nga juum hein. j'ai déjà fait des choses mon juum gars yi bind eh bro fille da nga juum ah oui c'est vrai je mon juum mais est-ce que gars yooyu ñëw na ma damaa juum est-ce que damaa braqué ou ne ah man ngeen wax dama juum man ngeen wax dama juum braqué wu contre eux fii kenn du fi seetaan et ça faut que ce soit clair que tout le monde se prépare à partir de la prestation de Bassirou Diomaye Faye ce pays sera surveillé comme du lait sur le feu parce que nit ay nit kese la ñu ñun ñëpp ay nit la ñu ñun parce que président dafa garaaw gars yi président de la République c'est dafa graw gay yi nañu def attention si ngour nguur dafa graw ngour da ngay soxla ay nit yo xamne da ngay juum ñu ne la hey da ngaa juum tu t'es lourdement trompé ñi keneen ñoo ne ko du nga juum keneen ñoo ne ko du nga juum mu taxaw parce que yo, do ñëkkee njiitu ndaw vous savez qu'est-ce qui se passe dans ta vie du jour au lendemain hein. man tay suma ma la ñaan yalla yalla yalla nga may ay milliards yalla yalla nga may ay château yalla yalla nga may avion yalla man dama bëgg vacances États-Unis yalla man dama bëgg vacances Australie yalla man dama bëgg dem Las Vegas loolu la ñaan yalla yalla yalla man de bëgg sam auto bi gëna a baax yàlla man dama bëgg auto bi bees bi génn mais soo nekkee président en fait mais to ñaan yalla loy ñant yalla à part gudd fan. yàlla dama bëgg les États-Unis yalla na avion qui t'attend yalla dama bëgg auto bi bees faut juste dire à ton ce ce ce directeur de cabinet je sais pas qui achète les voitures de la présidence et eh, jëndal dama jëndal mo auto bi so bëggé lek ginar faut juste dire au cuisinier du palais et eh, aujourd'hui moi je mange du poulet. so bëggé dem fenn nga seeti sa mbokk doone eh ben non que ma dem 14 heures parce que embouteillage non da ngay génn gaari ñu xal yoon bi mais nit pas soko ko taxaw ni ko xujju diko ko xel diko sogn mais nit kooku da nga koy sànq Macky Sall ñu ñoo ko ah. et ça je l'avais dit dans une vidéo dans 2014 2015 je faisais des vidéos comme ça Du coup, ça n'est sur le toile sur la toile Mais Macky Sall ñun ñi ñoo ñoo def Macky Sall ce qu'il est devenu ñun ñi on a une grande part de responsabilité ci li dans Macky Sall Macky Sall mën nañ dem ba yomal xëyam ah. yàlla woo ñun nañu yeen am ngeen responsabilité ci lu Macky Sall def parce que Macky Sall bu muy def affaire yeen ñepp taxaw di xol yéen ñëpp a taxaw naan bàyyi leen ko mi ngi doog a ñëw bàyyi leen mi ngi doog a ñëw nañ ko jox les pleins pouvoirs mi ngi doog a ñëw fan la Macky Sall mujj donc gars rek laa bëggoon wax ñu ngi tuub bu baax nag di jégalu asalaamaaleykum.